làmb c'est un milieu mystique. Mm-hmm. milieu bu doy waar. milieu bu doy te soo ci amul fit rek da ngay teel a freiné wu. Mm-hmm. donc euh, foog nga nekk ci euh, ba pare euh, topp tànk gaston comme mm-hmm. moom mu ngi fi depuis trente ans. trente ans d'expérience. gis nañ lu mu fi def fekke nañ lu mu fi def. donc moo tax facilité boobu noonu ma am ko ci tuuti. léegi yow lan moo la dugal ci làmb passion la wala fekk euh, sa sa sa waajur bu góor nekk ci rek nga ne xaaral ma dugg ci man <laughs> xam nga soo xoolee trente ans expérience ngay gis sa papa ci dem mhm. certes da ngay am sa liggéeyu bopp mais làmb mënu laa naqari mhm. donc làmb da lay neex comme ni mu neexee tout un sénégalais mhm. c' notre sport làmb ñun ñoo ko moom ñun sénégalais donc euh, soo xoolee quatre vingt cinq pour cent des sénégalais dañu bëgg làmb muy suñu sport donc te muy dëgg. Mhm. donc euh, milieu la boo xamante ni nag dafa doy waar. Ah. waaw foog nit def très attention. doy waar gi yaa ngi koy <laughs> yaa ngi euh, euh, ci ban côté. ci ban côté. wala ci yan côté. ci côté yëpp amul du ñu bàyyi benn benn benn exception ci côté mhm. yëpp milieu lamb dafa doy waar soo ciy dugg daal na nga maanu. def mhm. attention. li ngay def na ko xam li ngay def na ko mën. li ngay def na nga ko xam li ngay def. na ko mën ak xam ne parce que loolu soo ko xamul wala soo mënul rek soo ci duggee rek da ngay wat. Hmm. y a tant d'exemples je ne mais gis nañ fi lu bëree bëree. ñu wadd ay waddkat. en tout cas daal soo deful ndànk. <laughs> làmb moom moom moom ku teel a surux ngay doon. Ah, mais def ndànk gi ak teel gi. parce que mooy na nga maîtriser li ngay def. na nga maîtriser li ngay def euh, parce que sa papa. peut-être dañ koy dégg à chaque fois muy wax ni musul tëgg làmb ba génn ci financièrement euh, génn la làmb bàyyi làmb dugg ci waat ci làmb daj loolu yëpp nga gis coono yooyu yëpp yow en tant que son fils ma yaakaaroon ne normalement da ngaa waroon a daw milieu boobu mais yow nga ñëw dugg ci milieu boobu. ñun dañuy ñëw avec euh, la lutte autrement. Mm-hmm. c'est-à-dire euh, comme toute société rek. Mm-hmm. sooy dugg ci dara da koy étudier ba pare. donc soo ko étudier ba pare nga dem uti say pexe parce que soo amee yenn pexe yi am yenn connaissance yi am yenn euh, relation yi loolu mën na la si jàppale donc loolu soo ko xasee ba am rek mën na nekk benn facilité ci ci ci ci ci ci milieu bi waay mais lutte autrement bi yéen pas bee leen ëpp ay relation normalement mais dañuy profiter ci relation yooyu parce que pratiquement moom nu muy liggéeyee man maa ngi sama liggéey certes mais à soixante soixante dix pour cent. Mhm. maa moom ñooy faral di nekk. di ànd donc may xam nit ñi. Mhm. di dugganteek ñoom. donc relation yooyu noonu mooy day nekk ci moom day nekk ci man tamit. Mhm. mais Gaston production bi nga ñëwee ba léegi nekk directeuru euh, structure boobu lan mooy innovation yu bees yi. bon là maintenant on a créé le site internet boo xamante ni mooy euh, YouTube bi am na tamit. Euh, yooyu dañu yàgg am contenu mm-hmm. yàgg am contenu boo xamante ni musu musuñu ko musuñu ci am dara par exemple mm-hmm. mu leen ko mettre en valeur musuñu ko mettre en valeur depuis quatre vingt mm-hmm. donc ce qu'on a fait mooy depuis quatre-vingt-douze euh, wër nañ télé yi ñu doon liggéeyal yëpp récupérer contenu yooyu nga xam ni que Gaston Production moom moom contenu voilà donc euh, léegi euh, on a ces contenus mm-hmm. li ñuy def mooy nànk-nànk di ko dugal ci YouTube bi. Mm-hmm. nit ñi di gis liñ fi daan def. Mm-hmm. donc lii ñëw tamit lii bees nit ñi di koy gis ci YouTube bi. Euh, da nga daan gis ñu tëgg benn làmb yeneen sites yi ñoo doon ñëw ci biir làmb ci di ci jël seen i contenu di ci liggéey ñoom. Mm. ñun nga xam ni ñu ñooy ndeyu mbili li ñu ci am yooyu yëpp. Mm-hmm. donc maintenant tout ça ça a mm-hmm. léegi dañu ñëw autrement moom moo tax ma ni léegi maintenant c'est la lutte autrement. Mm-hmm. même euh, mbër mi sax suñuy wax ak moom euh, di waxaaleeg moom. dañ koy teg ci condition yoo xamante ni day leer. maintenant soo xoolee suñu signature yëpp léegi avocats yi ñoo ciy nekk. affaire yi leer suñuy signé ñu xam lu ñu signé. suñuy wax tamit ñu xam li ñuy wax ak moom. Mhm. parce que mën nga wax lenn su dee binduloo ko. Mhm. waxoo ma ci woon dara. yëfu mbër lay doon waaw yëfu mbër lay doon te maintenant léegi il faut. Mhm. concrétiser lépp lu ñuy def. en parlant de structuration ak mbër am na ñu leen di duut baaraam ne yéen da ngeen féete ci Balla Gaye Balla Gaye yàgg nañ ko wax sa papa ba ngeen ñëwee tamit daa benn yéen da ngeen ñoo dëggal loolu ndax yéen a ñëw yaakaar naa signeel Balla quatre contrat yi nga xamante ne euh, loolu mosta am ci làmb ngeen ngeen sañ ko def yéen jël benn mbër euh, teg quatre contrat ci boppam loolu c'est une première pour pour làmb waaw loolu yëpp dafa bokk ci laa lutte autrement te soo xoolee Balla Gaye c'est un des rares lutteurs qui qui se vend lui-même Balla mooy fay boppam Balla parce que dañ koy wax dañ ne Luc Luc dafa féete Modou Lo yéen ngeen féete Balla Gaye non bon loolu Modou Lo xaw ma tëggal nañ ko fii dernier combat am ak Balla Gaye euh, ñun ñoo ko tëggoon. Mhm. donc su doon Luc moo féete ak moom Luc du ko ma a afin du ko mos a bàyyi muy bëri euh, kii yooyu ay kii la Balla Gaye tamit euh, am na yenn Luc tëggoon na ko fii ki yeneen promoteur tëgg nañ ko fi. Mhm. yooyu bon Sénégalais itam léeg-léeg mën nañu lu nekk seen xel rek moom la ñuy wax. Mhm. mais c'est pas ay féete wala affaire yooyu. bon ku disponible rek mën a liggéey liggéeyam. parce que Balla Gaye c'est son métier. Mhm. Euh, su jëlul quatre contrats bon boppam lay kii rek soo xoolee quatre contrats yooyu noonu. Mhm. ñun lay gën a euh, favoriser parce que cachet bu ñu koy fay cachet en la. Mhm. c'est-à-dire euh, soo ko doon fay benn chiffre bi. soo ko nee quatre combats laa lay tëggal dana am benn genre pourcentage. bu lay waxaat kon yéen ci gagné mbër mi day perte daal. mbër bi moom mënul perte mbër buy perte foo ko gis. Hmm. mbër suy perte du bëri. mbër mënul perte. Hmm. léegi féete ci Balla Gaye bi. féete yow yaa ko waxee féete rek mais Balla Gaye c'est un lutteur boo xamante ne askan yi ñoo ko bëgg. et c'est un hmm. lutteur qui vend. Hmm. donc ñun en tant que Gaston Production en tant que structure. pour bégal askan wi. comme waa askan wi ñoo bëgg Balla Gaye. bon Balla euh, ama il n'a plus rien à dans la lutte. soo ko signalee quatre contrats cinq contrats six contrats. mais quatre quatre contrats yooyu tam dafa mel na ni léegi tax suuf. parce que Balla perd na premier comme combat am euh, génn booy ñaa génn ne comme Balla ngi nii moom du wax ay waxam moom tamit ne peut-être moom tamit nekkul di saraxu Balla Gaye Euh, mel ni kuy bëreeg Balla Gaye yéen tamit defoon ngeen sorti wax ci combat boobu man je je sax plan de com bi ngeen teg la yéen tamit pour euh, naxasal xelu nit ñi mais dafa mel ni quatre contrat yi fu mu toll ni tax na bon du plan de com sax xam naa <laughs> yàlla ñu ci jàppale rek ba combat bi di jaay boppam <laughs> fu mu nekk nii instant mi ni coow loolu fi joto am mhm. gën naa jaay combat bi mhm. profito ngeen ci de yéen bon profito waaw Sénégalais yi sax dañ ci profité ndax Sénégalais yi sax ñoo ñoo ñoom ñoo gën a yàqamti combat bi ko ñun. donc euh, yàllaa ko kii rek ñu ko koy sante xam ne moom Balla Gaye Boy Niang moom. Euh, c'est un combat que xam naa ni Sénégalais yi ni ñu koy xaaree du sax du sax nànk. léegi c'est quoi la suite pour mu toll nii ci contrat Balla Gaye. lan mooy Balla Gaye la daal la mi ngi préparé combat am ak Gris Bordeaux pour le 7 août. moom mooy actualité. le 7 mooy actualité bi. actuel actualité bu njëkk bi mooy Eumeu Sène Bombardier bu ñu jëm nii. la non ci Balla Gaye mais ci Balla Gaye moom mm-hmm. c' est le 7 août contre mm-hmm. Gris Bordeaux. Mm-hmm. régularisé nañ ko d' ailleurs il deux jours au CNG. donc euh, mën nañu jàpp ni que le 7 in incha allah. combat boobu dina am. Balla Gaye Boy Niang aussi c' est toujours d' actualité. Balla Gaye Boy Niang toujours d' pour le 1er janvier 2023. sous réserve de CNG jox ñu date bi. date bi. kon daal yéen a ngi yéen a ngi doxal daal Gaston Production mu ngi doxal moom. ñi ngi doxal pour peuple sénégalais. nit ñi di wax yéen ngeen ñoom ngeen doxal ñoom Vito naan yàqamte na combat bi donc foog ñu foog ñu bégal Vito. ci ci Makar léegi beneen combat tamit Bombardier Eumeu Sène. Bombardier Eumeu Sène bientôt dans deux semaine dans deux semaines. incha allah lan mooy innovation yi lan la ñu war a xaar.